tous les dimanches, on s'entraîne, soit à l'LG Imbao, à l'école de police, au parc de Han. On se rencontre toujours. On a écrit d'ailleurs des lettres au ministre euh, et on n'a pas encore vu sa réaction. Peut-être il l'a reçu, sinon il n'a pas reçu. Mais on s'est dit pourquoi pas ne pas euh, joindre la presse à, notre, à, notre, à, notre, lutte. Quoi. Au moins, ils verront que euh, dans la boxe, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des solutions. Euh, pourquoi euh, le ministre peut-être pourrait nous appeler pour solutionner euh, la chose. Le problème, elle est déjà d'ordre organisationnel parce que le président de la fédération n'assimile personne dans, son, dans, dans, le travail. D'ailleurs, pour ces compétitions, il n'y a pas un boxeur qui peut dire que les championnats d'Afrique ou les championnats du monde ou les championnats nationaux se seront organisés, les dates ne sont pas connues, qui va monter, on ne, sait, rien de ce que la fédération nous prépare. On a nos téléphones, on nous appelle, tu viens, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas de préparation. Et puis ça, c'est pas bien pour nous. La gestion fait défaut. Euh, en plus, financièrement, il est tout. C'est le secrétaire, c'est le président, c'est le trésorier. Tu as une idée qui est, euh, par exemple, différente de, de, de, de son idée ne fait plus partie de la fédération. D'ailleurs, les euh, réunions qui se passent à la fédération sont toujours faites chez lui. Depuis décembre 2018, Depuis décembre 2018, il n'y a pas, de, compétition. Il est Le dernier championnat d'Afrique. Euh, et puis, il est, il est en train de dire que c'était une vacance. Mais une vacance de 10 mois. Quelle fédération ferait cela Une vacance de 10 mois. Il n'y a pas de compétition, ni nationale, ni internationale. Les championnats d'Afrique de l'île Maurice, il avait dit que les championnats n'auront pas lieu. Et pourtant, on a vu les autres champions des autres euh, pays extérieurs euh, publier, par exemple, leur, leur, trophée et autres. Il est sorti et a dit que cette compétition, il l'avait annulée en tant que président de la Confédération. Mais si en tant que président de la Confédération, il annule une rencontre et que cette rencontre se tient, ça veut dire qu'il ne pèse pas. discipline boxe française dañ ci trop vraiment avant, wul demul fenn ñun combattant képp ku ngeen dégg rek mu naan la non ñun ñu ngi def boxe française wala si si comité directeur bi lañ bokk wala si fédération lañ bokk ne leen ko loolu amul tey jii combattant yaa ngi ni taxaw des anciens DTN ñu ngi taxaw secrétaires yeeg ñëpp ñu ngi taxaw pour lan pour que boxe française bi dox parce que doxul doxatul dara dox ñun ñii ñooy combattant yi boo ñu génnee Sénégal amatul beneen combattant kuy taxaw ne mën na représenter Sénégal au niveau international amul même au niveau national fi sax amatul combattant bi nga xamante ni pare na pour représenter c'est parce que boxe bi doxatul nit ñi ñi ngi ñu ngi abandonné ñi ngi bàyyi légui lan mo fi dess depuis ñaata wër defu ñu compétition. fédération bi li bëgg moy président bi si bopam na quitté loolu lañ bëgg na quitté na fi jógee quoi manam soxlaatuñ ko ñun ñoko indi won né ko yow lañ bëgg nga def ñu nga nekk suñ président fédération dañ ko fi dindi carrément bëggatuñ ko parce que ñun ñep ay combattant la ñu ngi nii duñ ma bàyyi ma fenn ñaata at ñu ngi ci boxe bi di rayanté di ñëw regroupement équipe nationale regroupement équipe nationale moom du sax regroupement équipe nationale parce que yow li ngay entraîner sa club loolu moo gën a metti mooy gën a intense que li ngay daj si équipe nationale bi benn ñaareel bi mooy dañuy bàyyi ba jouru compétition ñu door lay woo diw fu nekk ni international bu kenn du xam kan dem international kenn du xam da ngay toog ba jékki-jékki rek woo di suuf wo wo wo na ñëw leen ngeen dem noonu euh, championnat d'Afrique yi tamit noonu lañ demee dañu engagé huit combattants benn nit moo si am médaille d'or

voilà coono yu méttee métti la ñuy daj amul préparation amul dara da nga da ngay ñëw ba jour ji ñu ñëw ne la kaay box nga ñëw jom ak fulaak fayda rek moo la ciy génnee parce que box dafa doon loo xam ne dafa bëri risque kon def naa combattant boo demee ba koy yéegal ci kaw ring bi rek war na mën a doon koo xam ne yow préparé nga ko ci côté bépp ci fànn bépp mm-hmm. parce que tamit yombul da ngay toll moment boo xam ne surtout championnat d'Afrique yi passé ay combattant jógee fu mel ni Europe ñëw fii nii di représente seen pays ki di représenter Mali ñu ñëw gañe nañ ñu donte gañe nañ ñu neexuñu mais tamit dañuy xam ne dañ ñoo ëpp préparation dañ ñoo dañ leen dañ ëpp ay taxaw voilà loolu daal lañ leen di gën a rapproché tamit euh, li ñu metti daal bari na bari na trop parce que tamit jour boobu noonu mën naa ne keroog amul luñ dajut amul lu mu dajut ci oto bagage dañ ñu dugal moom am na yoo xam sax da ngay dem ba ruus koo nettali sax ñi nga xam ne yow yaa yaa ngi jëflante ak ñoom ndax dañ naan ñi kon est-ce que li ñuy def jar voilà li ñuy ñaan kay amul fi mu ne ñaan amul parce que tamit nit ki li nga moom moom amoo loo ciy ñaan da ngay ñëw rek xam nga ñu delloo la sa yëpp comme comme yaa yaa ñoo toogoon ba woo leen ne leen kaa leen ñu liggéey kon bu ñu demee ba gisatuñ suñu bopp tamit yoon la ñu ñëw ne leen kaa leen ñu toog waxtaan bu ko defee yëfi buñ ko mënee mënee doxal ñu doxal buñ mënul ñu dellooñ suñu yëf ñu dem xool ñeneen ñu ñu mën a diriger suñu savate bi mu jëm ci kanam parce que tamit ay champion ñàkku ay champion yu mag moo fi nekk kon moment di kon xam nous réclamons son départ son départ nous réclamons nous ne voulons même pas discuter qu'il part qu'il nous reste notre euh, fédération si même nous devons compétir sur sur terre sur la terre ferme on va le faire.